Yeah. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen a ngi jàkkaarloo ak liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Serigne Modou Rokhaya Mbacke woote ci dëkk bi nga xam ne moo di Tawfekh Tawfekh di dëkk boo xam ne Serigne Mouhamadou Rokhaya mi ngi ko sanc ci atum 1943 ginnaaw boo xam ne jóge na ci daara Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim fii mooy daara ji mu jëkk am ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala dogal nag mu ne fi di liggéey e, ba agsi ci jamonoy 1996 mu wàcc ab liggéey bàyyi fi taawam bi di Serigne Cheikh Anta Mbacké mu Serigne Modou Rokhaya moom it wooyee liggéey boobu waaye xam ngeen ne ren danoo jotaat ndigal ci Serigne Touba Cheikh Sidil Moukhtar xalifa général de mourides mu soññe woon lool ci ne kenn ku nekk na nga delluwaat ca àll ba yeesalaat tool ya waaye itam gën a yaatal mbay mi fekkoon na Serigne bi moom nekkoon ci loolu waaye mu gën koo fonkaat ndax ndigal loolu loolu nak mo sabab tay ji biñu liggey bi soté ba ñu ci walu ngop mi eh, mu woté ci dëkk yu fasantikoo fu mel mbarbawan serigne ndam sëriñ nek fa serigne Maamun Ja khalifa serigne Cheikh dia ak serigne eh, morsil khalifa serigne morsil Mor eh, ak njabootu daru salam gep ñu andando daaray serigne Balla Gueye ñoom nyu ñu ñew and na ci liggey bi ci ngop mi xam ngeen ne gis ngeen dugub ji nonu murit yi yanu ko ginnaaw boo xamante ne bi ñee ngi dagg ñee di yanu ñee nekk ci jaag ba di lippi waaye itam lépp nag sëriñ bi def ko ànd ak eh, ñi nga xam ne ñooy membre eh, CDD bu Mbacké eh, préfet jiite leen ànd ak agriculture ànd itam ak commerce ànd ak sécurité ànd ak ñaari président communautaire yi nga xam ne ñoo ñu seq di sëriñ Ahmad Diagne président communautaire bu Madina sëriñ Fallou Ba président communautaire bu Kayal ak ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ñëpp sëriñ bi itam gis ngeen taxawaay bu am solo bi nga xam ne murid yi taxaw nañ ko ci wàllu liggéey ak jaamu yàlla noonu ko sëriñ Touba santaane gis ngeen itam jaag bi lool ne na ko sëñ Mamoun Janet euh, leerale daanaka ba dañuy door a tàmbali ndax tool bi ci gën a ndaw ñett tool la kon tàmbali nañ benn des na yeneen ñaari tool yi ñu war a góob kon ci soo ba léegi mbooloo man ngi góor ñi ak jigéen ñi nekk ci liggéey bi ci jàmbaar lool at mu jotit ñoo fi ñëw si ñoo fi ñëw si dëgg góor bi gis ngeen jaaj bi ni mu toll yaakaar naa bii mooy bi ci gën a ndaw kon nag ñu ngi soññi gën a soññi mbooloo ñu gën a góorgóorlu ci xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa moom kenn kenn kàtt kenn kenn ku nekk noo ci sóoboo noonu la noonu la Sëriñ Tuubaa di fekke bu ñu doon xayma liggéey bi yéen ban ban waxtu ngeen ko door waxtu bi ñu ngi ko door ay sept heures lañ ko door hmm. yaakaar naa dañ fi dem ba fee guddi hmm. bu jeexee bu jeexut ñu fanaan ba suba rek. naka ngeen organiser woote bi. woote bi niñ ko organiser mooy sëñ bi joxe ndigal rek ñu woote ko sëñ moom bu xasee boo xasee joxe rek taalibe moom amut lenn lu lu muy xaar waaw sëñ moom moo ci jox moo joxe ndigal moo ne xam ne naa ngi bis sangam lañ koy góob muy gisab tey bi ñu ñëw fi tàmbali ko tey jii yaatuwaay tool bi bu ndaw yaa tool tool bi biir yaakaar naa war naa dem ci boo ko seetee eh, ñetti hectare ba ñeenti hectare yaakaar naa war na ko mat waaw. yaakaar naa mooy tool bi ci gën a ndaw. Hmm. lii ci tool bu ndaw bi la bàyyi ko. lii ci tool bu ndaw bi la bàyyi ko waaw gis na yeneen ñaari tool yoo xam ne ci la ñu war a demee war koo góobiwaat nii. yàgg ngaa ñëw ci tool noo gisee liggéeyu ren. waaw yàgg naa see ñëw wax dëgg yàlla léegi daal mën noo sant yàlla. di sant yonent sant maam Cheikh Anta. nga xam ne moom la fi ko ndax dañuy dem wala kii teg liggéey bi suñ loxo ah mu nekk mu teg ko suñu loxo liggéey bi sëñ Tuubaa nag képp koy teg sa loxo yow war nga kooga amuloo ko pay ndax liggéey sëñ Tuubaa rek mu am solo la waaye liggéey te liggéeyuloo sëñ Tuubaa rek defoo dara at mu ne mu jox nu ko bu nu ko joxee saa bu nu xëyee dañ ànd ak góor ñi ak jigéen ñi ñëw fii laxasaayu suba ba ngoon su agut dañuy fanaan jàng xam nga lu koy jàpp xam-xam jàng Jangan lewat lagu lu kumandang ban ñëwee ban ñëwee ba seen bàyyi yi ñëwee ñoom ñooñu kanam sëñ bi wax ko ne ko nag am na fa rab bu ñuy wax gay moon fa jaar nee na sëñ bi ne leen dellu leen du fa dégg ngeen fa dégg mu dellu ñu ñibbi si mbaam mi sëñ bi daan root jenn daara daara jee daan root mel na booba bu la mbaam moom bi ñu koy yëngu gaynde gi ñëw aaya mbaam mi ñaata bi la def ci suuf bi asamaan jotaayu mag ñi ñu di ma proposé di ma xamal ay suma maam suma maam moo toppoon loolu moo am waaw waaw déedéet jotaay mag moom bu yoroo mooy roos muy fort am na waxal bu ko ma xamee dëkk yaa ko wax waaw bu ko ma xamee dëkk yaa wax ay ca murit jóg dox muy dem jor jor cam ñu liggéey léegi ci mu dem yow moom bu dee yaa moom dong dégg naa ci ba ma jël duma seen gerba lay doon

네. 네. gannaaw bi nga ñëwee ci tool yi wër ko ànd ak sëriñ bi noo gisee taxawaayu sëriñ bi ci wàllu mbay mais noo gisee taxawaayu sëriñ bi ci tool yi waaw am nañu mbégte bu am nañu mbégte bu rëy bi nga fekk nañu sëriñ Cheikh Anta bu ci tool yi nga ngir ñu ñëw xool liggéeyu ngóob mi may wax ne administration bi nga xam ne mooy liggéeyam mooy bu dee ne am na kuy dox kuy dox euh, développement di ko def ci gox bi nga xam ne ci lañu nekk ci liggéey dañu am dañuy am mbégte wante itam dafay nekk suñu warugar ñu bàyyi ko ku nopp bàyyi ko xel di ko gunge ci li ñu mën looloo tax ñu ànd ak chef de service bi nga xam ne moo yor wàllu mbay ci département bi ànd ak chef de service bi nga xam ne moo yor wàllu commerce ànd ak waa sécurité bi mm-hmm. pour ñëw xool si moom gaa bëggewu ko woon noonu daf ñu invité woon rek pour ñu xool wante nit ñoo jàpp ne bu ñuy dox lu mel nii dañuy def sànni benn sànni am ci ñaari ñaari picc ñëw xoolaale li muy liggéey wante itam ñi nga xam ne ñoo yor wàllu développement bu ñu gisaale lii lii nag bu ñu mbët bu ñëpp defee nii jàpp nañ ne dina gën a defar dëkk bi dina gën a bokk ci lii waa kilifa yi bëgg ci ñuy bay ci li ñu mën a dunde def lu ñu tuddee autosuffisance alimentaire kon dañ koy encouragé di ko ñaanal lii mu mën mu gën koy mën di ko ñaanal taxawaay bi mu am mu gën a am kàttan ak wér yaram pour gën a mën def li muy def ñu nuyu leen masawu leen coono di wax ne am nañu mbégte lool te lu mel nii moom ñu ngi ñaan mu law ci dëkk bi law ci département bi law ci dëkk bi loolu rek lañu bëggoon a mën a sànni di félicité bu baax sëriñ bi ndaxte Euh, sëriñ bu defee développement. def na itam li nga xam ne mooy liy defar réew mi voilà. jërëjëf kon sëñ bi yow en tant que préfet taxawaayam. ci liggéey bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi. Euh, préfet ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax ni mu def ren ànd ak de service yëpp. rawatina ki yore agriculture ak ki yore commerce ak ñeneen ñi ci des ñëw taxaw ci tool tool yi fekk nu fi ñu fekk nu ci liggéey bi danañu soññ lool danañu sawar lool buñ bayoon ren fukk bu déwénee téeméer la ñuy bay eh, nun nag Sëñ Tuubaa lim di mos digal mooy na ngeen fexe bay dunde seenu ñaq loolu moo nu indi ci àll bi ndax mënoon na toog ci kër ga waaye dañu ñëw ci àll bi ànd ak taalibe yi di suñ bokki taalibe lu nu woote ñu nekk ca bi nga xamee ne Cheikh Sidil Muxtaar Sëriñ Touba eh, digle naa tam ne nañ taan nañ dem ruuj te dem ci liggéey bi ci lan dal di ñëw fii tàmbale ruuj tàmbale liggéey tàmbali liggéey nun ak taalibe yëpp euh, koo xam ne nag ki nga yaakaar di Sëriñ Tuubaa li liggéey la la digal ak dunde saw ñaq kii ko fi nekkal ak ñim fi wutu ñépp loolu lañ mos di santaane bu fekkee ne administration bi ñëw nañ fi préfet jiite leen ñëw taxaw waaw ah, euh, di ko ñaanal moom ñim àndal liggéey nii nga def nag eh, préfet yu bari buñ ko defee dana baax ndax mboolem ñu taxaw fi tey di taalibe yi di sëriñ si eh, bëgg nañ soññ nga leen eh, defe naa ne bu déwénee boo fi ñëwee da fekk ñu bay lu gën a yaatu li ñu bay ren sant nañ la bu baax di la ñaanal li ñu la dénk fii ci Mbàkke euh, préfet bu mos a jaar Mbàkke ndam lu mu fi mos a am nga am fi ndam lu ko ëpp yow ak chef de service yi nga àndal taalib yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom ñu man mu dolli seenu seenu wér dolli seen wërsëg te may leen fa lu gudd mu ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax liggéey rek moo am njëriñ kon nag yàlla na ngeen li ngeen di liggéey yàlla na ngeen ci am njëriñ lu koy seen njëriñ jërëjëf jëf yàlla bàyyi Mbàkke yàlla bàyyi ba ñu ñëw mën a fekkee waat rek Eh, noonu mu ko leerale eh, ci ne ñetti tool la benn tool bi ci moom lañ toll noonu fi ngeen ñu fekk beneen tool bi ci kanam bu bii jeexee fa lañ jëm eh, su ko defee lépp incha allahu rabbi dangeen ngeen ci jàkkaarloo ak moom bu fekkente ne bi temps bi maye na ko ak waxtu yi nga xam ne ci la nekk naaj wi tàng jër waaye loolu murit yi yëgaluñ ko seen yaram xanaa benn problème rek mooy am mooy gis ngeen gàncax gi nii ko soccet yi di lekke waaw nga xamante ne bi bari nañ lool Eh, woote nañ ci wàllu wax nañ ko préfet wax nañ ko agriculture waaye itam xam ngeen ne baykat bi moom bay rek la man waaye nag luy aar àll bi loolu état moo ko man te itam poudre yu ndaw ndawaan yi mun ko poudre lu mel ne avion wala yooyu eh, moo ci man dara waaye loolu lépp nag ñu bàyyeewaat ko borom bi subhanahu wa taala eh, gis ngeen ko noonu liggéey bi noonu rek la tëddee muy liggéey bu am solo boo xamante ni bii murit yi moom duñu sonn duñu tàyyi ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Bye bye. ak bokk yi nga xam ñoo wër tawfeex ñëpp ku mel ne gi ak bokk sam yi ñoom bi mi ngi nuyu di cantam ak ngërëmam ndax bëccëg bi ngeen yendu nee na bëccëg bu seer la tool yi mën am mën nañ bu li bi dong bi day mel ne mën a tasaaroo ba ñëpp jot xam na ne màggalu gaaru Salaam ak fii ñu leen wooye jege na lool te bu leen waatoon suba it gis leen waaye nag yéen a leen njariñ mënta jariñu bàyyi leen moo tax mu woo leen ci ngóob nii yàlla dogal it fi mu leen wooyee mooy li doomu aadama yi bëgg ndax taw feex la leen wooye te ñëpp taw feex lañ bëgg kon bu leen wooyee ngeen ñëw def kon ni mu ko bëggee diggante bi daal daa ko lépp ngeen noppi te wóor na ko ne bu leen bu noppi ngoon gi dangeen ngeen di fanaan ba saa yi noppee ngeen soog kon nee na mel na ne bëccëg bii ngeen yandu yendu moom bëccëg ba saxaaba yi jaayante woon ak yonent bi joxoon ko seen bakkan di xëy di gont ñooyam ndax saxaaba yi kat ban jaayantee dañ leen laaj seen i bakkan waaye ñun sëñ Abdou Lahad nee na li ñu yàlla defalee ndimbal biñ jaayantee dañ ñoo laaj ñaq yi waaye laaj ñu bakkan yi waaye nag ñaq moom daa mel ne moo gën a sori deret ndax booy dagg rek di gis deret waaye bala ngaa gis ndox nag moom da sori lool kon fa ñaq nekk moo gën a sori te sëñ Tuubaa ñaq yi rek dañu laaj mënut a jariñ nag benn taalibe te te te ñaqalu ko àjjana it li muy neex neex di ko sëñ Tuubaa di dig dongo yi dongo yi am pas-pas تيوي تي اي ay لاكو la فادوك dig fajog تي fii ci àdduna yi ñi wéy ci ay ndigalam te di ko xëyal la ko dig waqdi hawaaij alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu yàlla moom fajal aajo sax ci dima liggeyal liggéeyal ñooñu moom seen jëpp aajo jun am rek ba lañu ko tudd ci seenu wala seenum xel di ci dem na nga leen fajal seen aajo joojee kon bëccëg bi bëccëgu pajub aajo la beneen bi ñu ci des سيدي بابا هذا سنبرم نكو إن الذين ساروا في خدمتي فلهم الديار والجنة نيغا خامني نيو نيكون تي ادنا ديما خيل ديما ليغيل سوبا كون ديما جوخ سيني نياك مل لين ني بيس بون لين دوغالي تي بامل نانا لين دادي اوبيل سين كير غاني جاكارال تي اجانا وايي بون غيس لانين كون داي ملني سين بيتيل بي تخك ادنا لي تي تخك الاخره ني loole nag sëriñ bi nee na benn sëriñ boo xam ne am nga genn lenn takkaay wala wenn wërsëg wu gën a wu gën a seer wi la sëñ Tuubaa jox amut te wërsëg bi sëñ Tuubaa jox do sëriñ bi mooy dongo yi dongo yi it mënuñu amaat la leen lu ëpp am sëriñ bi ci àdduna moo tax sëriñ bi dongo yi la am dongo yi sëriñ bi lañu am sëriñ Fallu nag daa waxoon ne murit du alali baadoo la ndax ku ne xam ne ne ñaq wii ngeen yand ko bàyyi seen i kër ne ci naaju tàng wii ne ci dugub góob ko ba mu àgg ngeen yand ko lépp ngeen dippi ko ñaw toogaat ci kanam sëñ bi te bu leen joxaatoon ndigal bu subaa ngeen xëyta xam na ne yéen ñi alali sëñ Tuubaa ngeen moo tax sëriñ bi wax ne <coughs> bépp sëriñ boo xam ne am na borom pësteef yu mel ne yéen yii te woowu leen jëme ci sëñ ma ngay nax ñam àndal waaye ma ngay nax boppam moom nag boo gisee mu naan ñemewu maa woote damay xam ne dongo yi saa yu ma leen wooyee ci jëm ci sëñ Tuubaa rek laa leen war a woo waru ma leen a woo ci leneen te saa yu ma leen wooyee ci sëñ Tuubaa danaa ci ñeme ndax sëñ Tuubaa leen di fay moo tax woote bu mu leen woo rek ci sëñ Tuubaa lay jëm nee na wuy si woon ngeen màggalu Daaru Salaam bi andi woon ngeen suukaru koor wuy si waat ngeen ci ngóob mi te bu subaa bu ñu leen woowaat ngeen wuy si waat waaye noonu ngeen tegale na seen itte yëpp ngeen jox ko sëriñ bi yàlla bi tegaloo noonu ci faj i aajo yëpp ndax kenn ku ne ba muy jógee këram am na aajo ju rëy ju munta ñàkk mën naa mu man ko wax ci làmmiñam mën naa mënu ko cee wax waye nak bi mu ñëwé suñu borom mom gis na aajo yi kenn ku nekk ci sa biiru xol la ci nekk xamna kon ñak bi ngeen doon daw ci tool suñu borom ko xéré bu ngeen di ag muy faj seeni aajo ci dara darajee dëkk bi ngeen nekk muy tawfa ak dara ak jëm ak gi nga xam mo leen fu wo ngeen dajé sëriñ daam sëñ bi nee xolam sedd na ñu ngi lay yóbbante ak cant ci bokki mbar yëpp ndax yeen ñi seen laxasaay gi ngeen ànde woon ak sëñ Modou Mamoun ànd koog sëñ Modou Roqee ci jamono jamonoy maam Cheikh Anta bi ci bëss tey bii mosu leen ko teg lépp lu Daaru Salaam masa woote yéen a fay njëkk bu dee takk yi néeg yéen a ko daan def bu dee bay dëkk bi yéen a ko daan def bu dee bay tool yi yéen a ko daan def kon nag la mag ñu doon def yéen a ngi ci nekkaat yalla leen yàlla gàttandu ci darajey mag ñi sëñ Modou Mamoun ja dafa am xale bu fi am am ndox mu yóbbu ko hôpital waaye njabootam a ngi ñoom la sëriñ bi waxoon rek ca xel koom ja ba fi sëñ Saaliw yu mujj xel koom jëm ñu mujj yónni sëriñ bi daa waxoon ne ñett ñii ma yàlla booleel ci tool yi ñett darajee ñetti saxaaba lañ taxawe muy Aboubacrine ak Ousmane ak Aliou muy sëñ Cheikh Touré ak sëñ Ibra Baaxum ak sëñ Cheikh Dia nee na nag booba sëñ Cheikh Dia mooy Aliou ci seen wet taxawaay boobee rek la taxawe woon waaye lam leen waxoon ba sëñ Cheikh Dia di dem àjjana da leen waxoon ne sëriñ bu tuut amul taalibe bu tuut rek moo am waaye ak sëriñ bu tuut waaye yam ngeen koo xam teg ngeen seen bët xam ne amul kenn koo xam ne man ngaa taxaw ci kanam sëñ Modou Mamoune dina maa ko man xanaa maa ko ëppiwaat waaye maa ko man moom kenn ñemewu koo wax loolu nag positif rek amaral seen bâtiment baa ngi nii tabax nañ ko ba kuule des nawet bi ubbi mu ne maa ngi bay su mbay mi jeex ma ñëw di ko àggale kon ku ne xam ne ne kooku te téewu ko joxe addiyam téewu ko yóbbu suukar añ ndogu teew ko ñëw magal daru salam tok lam ci wara tok lepp wuy ci wat ni sëriñ bi nee na ñi bayyi konja yëpp le sëñ Ibrahima ja amoon 30 ans mi ngi dagan ci sëriñ Touba sun borom defal ko sëñ Mourou Mamoun Dia te defal ko ku andal non la ko yobante bokk sam tall yi ndax yeen sëriñ Modou mo leen defon ay dëkkandoo waxon ne kuy wut dëkkandoo da ngay wut asgor te doon ab julit te maandu te di jaamukatu yàlla ca yent yooyu ku dem sant yàlla da nga ko fa fekk da nga leen fekk ñuy niti alquran waaye da nga leen di fekk ñuy dund seenu ñax da nga leen fekk ñu maandu ñu jàpp seenu njàmbur da nga fekk ñuy ay jullit xàqan kon nag sëriñ bi nee lépp loo xam ne war na ci diggante nit ak dëkkandoom matale ngeen ko seen diggante ak tawfeex yal na leen suñu borom defal tawfeex bi dootul dañ adduna ak alaxira noonu lay sant njabootu sëriñ moo Simbo Mbaye Fallou sëriñ Cheikh Anta mom ku ne xamna taxawayam ci kër gi ak yéenam ci serigne bi ta tek ak la laxasaayam ben yoon waye nak serigne ba nga xamal ku fab sang ndaw jox ko serigne Touba mu yoral la sang mak serigne Touba neena won Cheikh Saliou jox len man ndaw ñi ma def ci serigne Touba defon ci mag ñi donte yeeyoowu ma ko it ma barké lo waye kep ko xamne fab nga sa ndaw jox ko serigne Touba bis bu doone mag du bok ci ñi yelwaani wala ñi nga xamante ni dañuy gàddu mbuus ton ay mag amna na góor gu baax gu ma wax lu ma sa wax ni góor goo fi seen ay bëtam naqari musta gis sëñ Tuubaa bu ne lee gis naa sëñ Tuubaa waxut la am sëñ Tuubaa kenn du ko gis say bët déeti naqari ko woon daa fekkee ba noppi liggéey waaye kenn du ko liggéeyal sëñ Tuubaa du ci yalwaane kon nag ndokk ba ngeen xëyalee sëñ Tuubaa di ko liggéeyal yal na leen yàlla fay jigéen ñi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ndax kenn mënu leen ca tool ya kenn mënu leen ci wàññi te kenn mënu leen ci daay yi ngeen ci mën nag yàgg na lool day mel ne soxna jaara moo leen ko wàll ndax ku ne xam ne nag ñam àndaloon ca maba maba jox jël sëriñ si di leen yóbbu ñooro kenn ku mën a taxaw ku man ma soxna jaara ca waar wa amutoon te moo ci gënoon a doon doon gone kon nag njàmbaaru soxna jaara ga moo wàll si ba ci yéen sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàggul kenn ku ci nekk bu fekkee da ngaa nekk ci kër di sëy yàlla na la fa yàlla jox barke muy doom ju attan waa kër ga ñëpp mu dee ko amagut borom kër it yàlla na yàlla jox seeni sëriñ yàlla jox leen xéwal guñ leen yore ci barke Cheikh Khadim sëriñ Basiiru Baabu mii itam alaaji Yuusufa Baabu waajuram lépp lu mu mas a defal maam Cheikh Anta ba maam Cheikh ànd ak moom fu ne Basiiru Baabu mii defal na ko sëñ seex mii loolu ndax màggal gi rek ku ne xam na ne yokkaat nag kër alaaji Yuusu Baabu def ci loo xam ne ànd naag ànd naag borom gaawaan ci jamonoy liggéey jumaay Touba miir jàpp ko fa waaye la muy nuru nuru ku xam ma nga naan bu leen ma fi suul yóbbu leen ma Daaru Salaam soxlawu fi dara kon ku ne xam ne kooku borom gaawaan rek la gëm loolu it ku ne xam ne am na taxawaay waaye sëñ Bas mii bu fekkee ne ab taalibe gëmul sëriñam ak bëggu ko ak wóolu ko ak doyloo ko ak nangu ko liggéeyal moo koy jariñ sëñ bi nee na da nga jariñ ndax yooyu yëpp def nga ko ci moom kon nag mi ngi lay sant bu baax di la gërëm donc yi ne ci daara ji ñu xam ne lii ab soññe deful la lii sëñ Saaliwu noonu na woon dong ab tërbiya ak ku tërbiya wut day nuroog ñaari kemb gerte nee na benn kemb gerte bi da koo ko tëj ko ci sa gaal ne damay bañ mu yàqu kooku mooy doom ji nga téye ci sa kër beneen kembu gerte bi da nga ne dama ko yóbbu ca tool ya ji ko fa mooy doom ji nga yóbbu ca daara ja nee na boo ko fa yóbboo te bàyyi ko fa nag bu saxee nga bañ koo dagg te nangu koo bay bu demee bay tuur tuur nga bàyyi ko fa ba mu ami doom nga bàyyi ko fa ba gis ne xob yaa ngi tàmbalee soppeeku mu ngi bëgg a ñor nee na nga bàyyi ko muñal ko tuuti ba gis ne feppi suuf yi den ak moom mi ngi toj nee na boobaa boo ko déqee dana la jox téeméeri kemb yu yu raw yowoon ca biir gaal ba noppi àndaaleem ngooñ nee na ngooñ ma nag mooy bénéfice bu àdduna bi waaye gerte gaa taxoon ñuy bay nee na dongam tarbiya noonu lay mel waaye bu ñu ko yóbboo ca tool ya nag ji ko saxagut borom ne dama ko yàkkam bu ko dindi day ñàkkub kemb te doo am ngooñ bu demee ba sax it tàmbalee tuur tuur mu yàkkamti ko ko doo am ngooñ doo ndax loola du mën am ngooñ bu demee ba mu def ay doom ba doom ya tàmbalee def ay kemb mu yàkkamti buddi ko bu fas wa lékkul ngooñ ma moom gerte du ko am ndax doom ya du mat nee danga ko fay bàyyi ba mu mat boo ko buddee mu am njariñ loolu mooy dongob tarbiya bu ñu yóbbu ci daara dafaa war a toog ba sëriñ bi gërëm ko sëriñ bi moom saa yu ngërëmul yàlla nekkee ci yow duutu la xëyloo benn bis duutu la ko gontuloo su xëyee ci yow suba du la gontuloo bu gontoo ci yow du la du la xëyloo waaye ngërëmul yàlla nag sëñ bi rek ko xam waaye dongo bi mënu koo xamal bopp nee na beneen kemb bi bi nga tëj ci sa gaal mooy doom ji nga yoroon sa bopp bu la ca jinax wutoo nga ñàkk bu fa yàggee xuur tayit boo ko yee dootoo am beneen kemb loolu mooy ki nga yoral sa bopp yàqu da cay yomb waaye ki yàlla yor moom dara du ci yàqu kon sëriñ bi ne na ngeen doolee góorgóorlu te xam ne li ngeen di wut yàlla te jafe na ngërëmul yàlla nag yombut te lu yombut ku yembat rek ko yàq kon yàlla yàlla dimbale ba ngërëmul yàlla li ngeen fi am ngeen wut ngeen am ñun ñëpp ñu maasa ñaanal sëriñ bii suñu borom gën ko fee yàggal ndax gën a ak wéram ndax sagub sagub kër gi la sagub yoon wi la waaye sagub daaru salaam la sagub kër sëñ Modou te it wàcce na darajaam wàcce boppam ba mën a maase dongo yi ba man ñoo def loo lii koo yéenewul njariñ doo ko xëyloo yéene ñu njariñ rek moo tax mu dajale ñu fi ñu yendoo ñaxal sëriñ bi ba ngoon jot te kenn ku ne xamoo woon boo demee sa kër lan ngay yendoo mën ngaa def lu naqar yàlla mën nga ko faa wax waaye wóor na ne bëccëg moom ba nga xëyee ba jant bi so defoo fi lu naqar yàlla waxoo ko fi wala boo ko fi defee yàlla jéggale ko ndax yaa ngi ci biir ko mënoon di am suba ngoon bis boo faatoo kenn du Aku anggur jëf nee na ay jàmbaar ngeen lool itam yéen waa daara ji sëriñ bi nee na bu fekkoon ne da di nekk ci daara ji di fo rek kon mbooloo tey bu ngeen fi newetoon di fo loolu du ngeen ko mën a nee na kon loolu du ngeen ko mën a kon nag kon nag. sant lañu yàlla bu baax. ngeen sant yàlla bu baax. te xam ne seen liggéey bi te xam ne seen liggéey bii. daan na barkeel naka jekk. daan na barkeel naka jekk. waaye bii itam barkeel waaye bii itam nag barkeel na. mu wóor leen ne uh, liggéey bu suñu borom nangu la. mu wóor leen ne liggéey bu suñu borom nangu la. liggéey bu suñ tubaa nangu la. liggéey bu sëñ tubaa nangu la. toolub Serigne Touba la. toolub Serigne Touba la itam. ndax na mu daan doxee ba fi sëñ Modou Rokhaya nekkee rek. ndax na mu daan doxee ba fi sëñ Modou Rokhaya nekkee. noonu rek lay doxee. noonu rek lay doxee. damay damay xam lim bi rek. nee na moom day xam lim bi rek. boole kook leneen. boole kook leneen. jébbal ko sëñ Touba. jébbal ko sëñ Touba. ki fi nekkal sëñ Touba. ki fi nekkal sëñ Touba. kon nag sëñ Touba ngeen di xëyal. kon sëñ tubaa ngeen di xëyal. moom ngeen di gontal. moom ngeen di gontal. nangu na liggéey bi. te na liggéey bi. jërë ngeen jëf na ñëpp maa si tàllal na buñ ñaanee ñii dem Darou Salaam mën nañoo dem ca benn ba ma nga fee taxaw ñii dem bar demaat ci oto ba amin gis ngeen ko ni ko sëriñ bi waxee itam tool bi moom dara mosu fee jógee dem ci magasinu sëriñ bi wala mu dem ci poosam lu fi ñore rek dem na ci loxo ki fi nekkal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ci jamonoy sëriñ Modou Rokhaya ba ci jamonoom waxtu wu ne bu liggéey bi àggee rek nu jal ba toll ñu ne ko nangam la mu ne eh, indi leen ma boole koog li fi nekk ñu joxal leen ko sëriñ Touba te it loolu yaakaar naa ne mooy li nga xam ne mooy li am njëriñ ndax loo jox sëriñ tubaa yàqootut ku baax ka nan na woon loo am ba yëg ne neex na ci soxal boo ko bañee ñàkk gaawal jox ko sëriñ Touba boo ko joxee sëriñ Touba ñàkkatoo ko yaakaar naa ne nag loolu moo sabab tool yi at mu ne la fa ñore woon daaw day gën a bari loolu ren di daf koy gën a bari dara waralu ko lu weesu la woon daaw jox nga ko sëñ Tuubaa yàlla fulal na la reel ni kamasali habbatin mi atu sa xasana bi fii kulli sumbalatin mi atu habba loolu yaakaar naa ne mooy pay gi kon nag eh, yàlla nañ yàlla dugal ci biir loolu kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lu fa ay xëy yàlla na ko yàlla nangu ci barke Cheikhul Khadim di jaajëfal baax a baax suñu caméraman Serigne Cheikh Samb àndoon ak eh, équipe bi nga xamante ne bi ñoo ko doon jàppale ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal tawfeex di jaajëfal itam eh, waa télévision bu Lamp Fall ci njiitul sëñ Alioune Thioune moom itam taxawaay bi nga xam ne moom la sëñ Aliou am ci tool yi rek eh, sëñ Cheikh am ci tool yi moom la ci am ndax itam ku ne xam ne ne sëriñ Cheikh Modou Rokhaya way juróom la te itam noonu la daan taxawee kon moom itam ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbooleem équipe technique yëpp di leen ñaanal suñu borom musal leen te sàmmu leen ginnaaw boo xam ne jóge nañ ci tool yi nag ngeen daal di dégg kàddu yooyu nga xam ne moo tukkee ci préfet bi dégg kàddu yu tukkee ci Serigne Cheikh waaye bi nu ñibbisee nag ci kër gi gis ngeen mbooloo mi ni ñu toogee ñoom ñëpp jàkkaarloo ginnaaw bu ñu xewloo ba noppi kàddu yi mooy leen sëriñ bi yeewee ñaanal leen su ko defee nag ñu dem waajaat kon ñoom ñëpp ñu ngi noonu jàkkaarloo sëriñ bi mu leen di ñaanal yal na yàlla nangu ñaan yi ci barke Cheikhul Khadim